waa lu xew mbaroodi Sénégal daal di def taxaw seetlu ci maison de production bii nga xam ne coow li bari na ci moom kenn dootul fàtte départ Marème Dial mi créé woon bruit bu bari ci réseaux sociaux yi d'ailleurs ca Côte d'Ivoire Marème Dial daan na def benn épisode di expliquer lu tax bokkul ci saison 3 bu maîtresse waaye bii yoon ñu ngi laam-laame demu Gorba Niang mii di interpréter rôlu Tahirou li koy firndeel depuis épisode 11 ba épisode 16 gisuñu ko Tahirou mi nekkoon pièce maîtresse ci série bi ak rôlam bi captivé woon téléspectateurs yi daal di mel ni lu ñu changé ci série bi Jalika mi nekk jabaram di rapproché wu ci biram Dalanda première femme am focalisé wu ci métier d'avocat ay doomam sax da dootuñu leen wane mu mel ni bul bu tourné te xamuñu fu muy teeri jee jéem nañu gëstu nag lu waral loolu mais ci benn post bi ñu gis Facebook xamal nañu ne Tahirou dafa am problème ak waa Mbarodi si yenn commentaires yi sax dem nañu ba naan Calista si boppam ki bind série bi moo am problème ak maison de production bi. ci benn post bi ñu gis Tahirou def après ces rumeurs mi ngi wax waxu respect xamuñu nag Marodi moo ko moom wala keneen waaye gis nañu mu am chaîne de production boo xam ne bu bees la. waaye nag du moom kase Mansoura tamit gisatuñ ko ci série bi. moom it ndax daa kiite te rôlam pareegul. ñuy laajte nag te mbaroo di war cee tontu. ak lii yëpp maîtresse d'un homme marié est-ce que du saison 3 bi mooy jeexal série bi yëpp en tout cas gis nañ ñuy annoncé beneen série bu bees diamétralement opposé ak maîtresse d'un homme xanaa ñu taaxirlu xool affaire yi fu muy mujjee.